am solo parce que politique bu leer mooy ñun li ñu wax rek nañ ñu encadrer juridiquement jox ñu matière première jox ñu équipement c'est simple dëgg yàlla mooy gisuñu or dégg ñu or dañu dégg or dëgg mooy gisuñu or dégg ñu or or dégg nañ nag ñu ne ci euh, Sabodala fi nga xam fa la or bi nekk dégg nañ ñu ne maliens yi ñoo ko gën a mën a jënd ko sénégal yi loolu nag dañu xamul balance commerciale bu baaxul la wala matière première bu amul prix la mais ñun tey suñu sañoon gouvernement Sénégal bancarisé bancariser mine bi ut ay banque fii spéciale yoo xam dañuy financer or bi parce que fii ak banques yi financé wuñ matière première bi balance commerciale bijou bi du mën a stable te ku ne xam ne ni éco bi mi ngi ñëw te éco bi bu ñëwee ne la te monnaie boobu bu ñëwee fekkul sa matière première am euh, nekk ci stabilité. tey gars yi ñu ngi ciy jéem xam nga ba tey tooguñu parce que tamit état gouvernement Sénégal du ñu wax état du Sénégal parce que état du Sénégal nous sommes tous ni gouvernement ni personne privée ni personne physique mais li nga xam ni moom la ñu doon jéem ñoom ak suñu mbokk yi nga xam suñu papa yi euh, bàyyi fi comptoir bi bàyyi fi programme bi ñi nga xam te ñoo ko ŋànk mu mel ni ku mel ni président Ibrahima Niang mi ngi ciy def ay jéego mais ñoom nañ toog ak bijoutier yi buñ toogee ak bijoutier yi dinañ gis solution parce que bijouterie am na quatre-vingt-cinq pour cent ci TVA mën na ko génne état Sénégal bu ko joxee matière première équipement mën na ko génneel taux TVA 85 pour cent xam nga secteur boobu kenn kenn war ko foowee parce que mais ñàkk waxtaan moo tax naan bijouterie dafay 5 pour cent et 18 pour cent loolu dafa loolu dafa tuuti parce que bijouterie dafay utiliser chimique dafay utiliser industrie dafay utiliser art dafay utiliser production dafay utiliser service kon li mu mën a génn ci TVA kenn xamul nu mu toll mais nag foog ñu toog ak bijoutier sénégalais yi ñu def ay proposition ñu wax leen ni lii bu ñu ko defee day baax ci éducation bijouterie dafay baax ci euh, euh, enseignement en bijouterie dafay baax ci production bijouterie ci importé bi ñoom dañu ko maîtriser mais bi ci importé bi amulul intérêt Sénégal amalul benn intérêt Sénégal duñu ñu ko réparer Sénégal mënu ko répare parce que bijou bi du plein creux la te ñun suñu suñu nation ñun suñu suñu culture bijou plein la kon xam nga importé bi bu duggee ci douane bi dafay cinq pour cent kooku sûreté TVA kooku perte la perte la secteur bi ñëpp employé am la tout le monde employé bijoutier la léegi la ñu am nag matière plastique ak luy birier ba tax ñu toppandoo bijou mais lépp luy biri rek or la war a doon kon secteur bi tout le monde ay employé am nañu loolu